waaw jàngat ma ci am d'abord damay sant di gërëm joueurs yi parce que liñ leen wax déglu nañ ko maintenant ñoom lu ñu waroon def lañ deful mooy maanaam dañ leen jox liberté bu ñu amee bal ñu joué mais bu ñu ko perte lu ñu war a taxawee pour adversaire bañ ñu bett loolu au moins def nañ ko même bu fekkee ne am na par moment ay occasion yu ñu bàyyi mais dafa bokk ci football bi munoo defaat quatre-vingt-dix minutes adversaire du am dara mais li ma ci jàngat mooy pour le moment comme dañ ma sant ma defar équipe bi nga xam ne war na mën a taxaw te xeex ak yeneen équipes yi yëpp. ci kaw championnat fii ak benn at donc je pense que maa ngi ci yoon boobu noonu équipe bi depuis deux journées maintenant jëluñu biir donc daf ñuy permettre ñu am benn base défensive bi nga xam ne après ci si lañ sukkandiku pour mën a attaquer équipe bi xamoon nañ ni match mu joué à l'extérieur yëpp daf ko gagné presque te nu mu ko joué seetaan nañ ko ñu xam ni daf lay bàyyi ballon bi après ci say erreur mu dem dugali loolu nag wax nañ ko xale yi préparé ci loolu pour bañ am betteel betteel boobu noonu. heureusement am ñu betteel boobu noonu moo tax ñu ngi ciy sant yàlla baax a baax waaw sant yàlla xam nga yàlla moom li mu dogal mooy am cest dire que ñëw nañu ak bëgg a parce que xale yi ku xool nu ñu engagé match bi nu ñu ko mais après loolu la dogal parce que tey boo xoolee am nañu maîtrise match bi contenu bi baax na xale yi téye nañu bal bi joué nañu créé nañu multitude occasion dóor nañu ko ci baar bi fu ne gis ngeen ko mais yàlla nu jouons championnat après maintenant il faut qu'on au travail et préparer les prochains matchs. man de li ma soxal dëgg dëgg dëgg nekk ci kaw léegi neex na waaye nañu ñaan yàlla ci vingt sixième journée yàlla nañ fa fekk jaraaf mu jiitu mu nekk ci kaw loolu rek laay ñaan yàlla man nekk ci kaw léegi amul sens man man championnat bi damay préparer équipe muy évoluer au fur et à di progresser man loolu mooy liggéey bi ñuy xool ci entraîneur du nekk P ak nekk ko